jiite ak jikko yi ku ko yor laxoon nga mën a jiite. séeréer. kay war la rek di jiite nag bàyyi ah, lu ma ci boole wax xam naa daal koor gii benn koor bu ko gën a métti. koor bu tombé nawet nga ne taw du taw foo tourné naaj bi tàng sa kaw oh. boo la ko jël dara bëri wax moom day métti lool lool alhamdulilahi rabbil alamin. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw. kilifa yi. ba si la neexul war. man la Abdou de. ah Abdou. maanaam Abdou Kay. na nga def. dina. ça va yaa ngi jàmm. waaw. ah yow moom dégg naa ñu ngi. ah waaw gis nga jamono bu nekk ak la cay xew. ah koor gi war nay am koor gi war na am nag at bu ne at bu ne koor gi war na ci am yii yëpp daal yëg naa yàlla yëg goo xam ne. ah ma nekkoon ci di ko sellal rek ba fii may wax ak xiir na ma caax di fi mu ne bëggatuma génn du ma demati fenn wéetal sama borom rek. yow mii de damaa ragal na nag da ngay nag. ndax kuy làmbatu mooy koo xam ne ñëpp xam na ci tur nga sa jikko bi toj toj dum ne def nga ko toj toj immobilier dugg ci kër jàmbur la yaa ko moom jaay teeral jàmbur mm. nga jaay ko tur la xaalis daayira jàkk ci boppam toj la bi yooyu yëpp lu bëgg xëy rek ci koor gi nii rek du ko soppi nii ñoo li mu gëm yooyu gis nga yow nag yaa ngi bëgg laa laalaat sa njublam jooju nga juble pour yàq nag dugg ci diine nag moo la des nag di ay ay ay ay ay ay ay ay science musulman bu ko contourné pour beneen science boo la tax a jóg. ak ah neen ñokket ni nga jógee neen ñokket jug ca kaw war ma wàccale ci suuf. ak ca jugal ca kaw. Ah, lu fi jël ci ah. sàcc lu sotti njikko. sàcc lu bon la. waxoo dëgg yi ma ne wax te wax du dëgg ma ne ko loolu wax. ah eh, eh, ah, eh. boo changé ci kaw mu kaw sàcc nga. dinaa génn waaye yow dina génn yow. man xam nga damay mën na génération doomu si yow dina génn man. daara jooju ma la waxoon moom. dem nga dem naa ko dem ah. naa ko wax moom nee dina ñëw. bu bëggee jël maire bi de. li ma ko wax faa mu def. Ah, wax naa Saraf Kakata de. waaw loolu na ma torop. <laughs> xam nga euh, ñoom daa am ñu ko sekkal. Hmm. te ñoom dana bari te bari gi te nit ñi it gëmuñ dara. Hmm. Ah, kii dem ci kii mooy leen digale. moo tax ma defe loolu lépp ci bu kàkkatar bi. d'accord ci moo tax sëñ ab. Mm-hmm. yow yow wàllu kamaal nga yow. ñu desal ko ñu ma ko. waaw maanaam nangam nga <laughs> ndax la ma doon li ci dàqoo <laughs> waaw. la mais nii bari na yoo xam balaa am ci réew mi faaw ñu dàggu ndax yàlla du def day te yëgu ko mm. <laughs> man na peccoo dootoo nekk bëgg nekk foo dem seef bu rëy nga bay nekk xam nga man xam naa kañ lay far ak waxtu may far hmm? waaw daa bi ram leen kuy fekk waaw bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam asalaamaaleykum man doon ba naan joole maaleykum salaam. sëñ bi. Maodo. sëñ Moussa. sëñ Abdou. Maodo Ndongo. Maodo Ndongo. alhamdulilah. Maodo Ndongo. Maodo Ndongo. alhamdulilah na ngeen def ak coom. wax ngeen naaj de. naka mbokk yi. bisimilah yegg si ngeen ci jàmm. bisimilah def leen comme si. ah eh, sëñ Abdou. ñun day wax dëgg yàlla. defe naa ne kuy fant de soxla ak aajo taxul muy wax te maag sama naaw la yi ma àndal ñu bokk dëkk ci koñ bii ah dañu indi suñu soxla pour nga ñaanal ñu ci yàlla dëgg la sax xamal leen doolay sama litte dama ànd ak leen bañ nekkee xale ba léegi gis nga leen léegi tool bi mënuma fexe ba màgg ginnaaw mooy seen kéemtaan damaa bëgg mu yokk ma tuuti ndax gaa gis ma sonn naa tamit bi ma la divorcé ba tey mënuma am sax koo xam ne daf may seet di jóg di daanu te man tamit damaa bëggaat doon comme sama. nga dimbali sama wujj ma sonal. Mm-hmm. koor gi mm-hmm. sama borom kër wujj lay jiite. Mm-hmm. man mu ne ma yàlla fee. ndax wujjee bu weer koor. nga war a mën a tegg wujj ba ci weeru ko sawru ramadan yëg na seen wax léegi nag bool lu ngeen am bu leen keeb waaw mu gën nit sa yéene ci sëriñ bu bëree sëriñ bi yéeneem ci yow bëri su jokk lu bëri am lu bëri kon dajale leen ngeen togg togg yu baax mu ñëw ak naan yi man bu ma ko lekkee mel ne lekk waaw ah, dégg nga mu ngi kay boo duggee rek ñaanal nañ boo duggee rek ñaanal nañ day jaay dara ak foor xam-xam. yow may ma sama lii fi nekk nag de Abdou moo ko gën a foor xam-xam. yaram na bu na dara nag waaye lañu nangu rek dañoo gis ku ko sut kese te ku la sut ku ne nee ko mbëri lan wax ji a waxtaan mhm. la mu dem doon xam-xam dëgg la bu boobaa yokkutam lay doon ak yokkutam njabootam xam nga laa bëgg sax suñu yeggee nan ko wax mu sut ko groupe yaa ngi dégg. Eh, nit ñi xam dama ne ku bëgg dara da ngay jébbalu xam ne loolu am na looy rus boo fi nekk de eh, temps yi eh, moom ah, xam baat boobu ngeen yëkkati ci kaw teg leen ko ci suuf xanaa du am lu mel ni ngeen di wax waaw waaw sàcc bu bon bu triant bu bon boobu ngeen di jéem a. Ah. politique am. Ah. yéen a perte yéen. yaa mën a yàqu moom da ngaa soxor xàmmeetuma la de. man ngeen ñëw ba sama buntu kër nag di yëkkati ab li ma wàcce. yow eh dañ la doon dimbali dañ la doon dimbali rek pour nga dem jépp lu doon saxam xam kii yàllaa ko may. waaw dangay bëgg lu jàpp ci sa loxo. waaw àndal ko foog. ñaari bëtu oo nii dama bàyyi jeg dama dama bàyyi jeg ci biir. xool leen sama morom. waaw ngeen ma respecté dama mën ñu ngi lay jéeg ñu ngi lay jéeg am nga ku de defanteeg moom. walaay jéeg bu ne faaj yaa amul leen lu ngeen fii wax. ah su ngeen di lu ngeen di ratatati ngeen ratatu ji ko fenn ak jëw dong na seen. lii la ñu ko la ñu ko jàngal. lii la ñu ko jàngal. dem ca sa waay xam na mooy sàcc kon bi nag xaaral rek bàyyi ndongo daara yi bàyyi imaam yi nekk ci koñ bi bàyyi kilifa yi nga xam ne malfaiteur foo mën a usage est faux eh, eh eh eh eh dellu. waaw yow lii lan la. xamoo lan la. <laughs> yow bari bii ci diggu mbedd mi pour lan la. xamoo lii lan la. xaw ma ko kay kon du ma la ko laaj. ah. essayé ko jéggi xool. man ubbil damay yóbbu kii Ndago bii fu mu ah, kon de du egg du wan na. jaara. yow lii nga def nii yëfi nit la. def ak noppam ñaari tànkam taxaw. lii soo ko deful woon ma ma mu jaaxal ma. yoo xam nga ndof gi ñu doon naatable. ndekete yow da katakay eh, bu dee ndog la du ndog bu dee xënd la du xënd. mooy dog ak jàmm ak salaam. yow lii nga def du yëfi nit. ay acca bool bi war a nga dem nga ñàkk bool bi war a ñàkk sa bakkan pistole na laggal. man de yóbbu ndogu nag bu ma ci pistole naree fekk. doxal seytaane rambaaj naa fekk escroc malfaiteur comploteur de malfaiteur bon. ma da ngay jekk tay baas loo def noonu yàgg sa bool bu kawe mel na monument dëppal yàgg bool bi ci ginnaaw. lu tax may dëpp. foo jëm. kër sëñ bi laa jëm dama. ban sëriñ dama sëñ Abdou. Abdou ban. xamoo Abdou sàcc war sëñ bi fi nekk ci koñ bii. dellul damay dem. da dem. Ah. Eh! ay ca dellul nànk nànk ma lay dégg ay ca la dal. mais mu maa ko mën a def dana xam ne may jàmbaaru lislaam jihaad rek koy seeti. sëriñ bi laa yóbbu reer. benn sëriñ fi am mooy man bu weesoo moom ku mu. yow wedd nañ la yàgg na. ah waaw sëriñ bi xees de. Eh. tegal lagal lagal ngay batar batar lagal dawal ngay batar batar aca lagal wala bu déegi ñoom da rek dinaay àdduna xam ne man du ma bu wadd du seeñu du galandeku bu dee supp la yaramam du tàng du seeñu de di xaar nag képp ku ñoo tax di defar rek nag jeegu koñ bi yëpp nax leen bëgg na ñëw ci diine gi du ma ko nangu du ma nangul kenn kenn mu yàq diine bi du ma ko nangu saay saay waay waay lan la def ma la xaloon. maa ngi woor ba ngoon kilifa am ñu may indil ay ndogu mu ne ndogu du fi dugg baare nii. ndogu du fi dugg jar na dafay jar ah. man de yow doo ko def ah. yow nag wax dëgg coono nag xanaa wóoroo. ñetti fan lekku ma. di fan lekkoo. waaw ah man lay bett. dafa ay eh, wuy ma nan la. boo ko buy ma kenn ku toll yow war ne ci koñ fii ba léegi def ci jëm ci bon bi ah man lay bett. lan eh, wuy ma lan moo war laa wax. maa tëj kon bi bu nekk ci koñ bi dafi woote diine di nax jigéen ñi di leen wax loo xam ne dara amu ci tappale kat la jàngum luxus xam-xam bu ñu li mu yëf yëpp ay tappale la saay saay bu bon a ngi du ma dëkk moom ci kon bi nag ñu ko yàqal ay taranga te fi ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ñun bu boo di gi jëlu jëmu ci dara du julli du woor sàcc naa ko dëgg teel eh, sa gémmañ teel sa gémmañ parce que yow xawma li ci koñ bi ah kii li mu wax dafa niw dëgg ah. dafa niw dëgg kay eh, yow ñu ne def ay defal nànk rek yow ñu ne indi lekk sa lan lañu doro mu de xawma dama ko chargé billaay dama ko chargé dama ko chargé dama ko chargé de. man ngay wax. ah man ngay wax. de dama ko chargé yow de dañu doon jafe yow defuñu ko kenn. dama ko chargé. léegi ndem man dama dëkkuma ci koñ bi. déedéet yow mi dëkk ci koñ bi rajo yëpp. dama la xam lan mooy. rajo yëpp. rajo. yow yaa ko yow yaa ko toog. kon mbokk yi ginnaaw bu ñu seetaanee Abo Bilal eh, ak eh, mbokk sëriñu tariyaaxam boobu eh, ak jigéen ñi bi yëf yi doy na waar Abo Bilal sëriñ la woon sëriñu tariyaax jigéen ñi lu nekk lañ ko daan defal mais am beneen mbokkam bu ñëw moom it doonaat beneen sëriñu tariyaax jigéen ñi folli Abo Bilal commencé léegi di dem ci waa jooju Abo Bilal loolu moo ko métti mu tax def baaraas mais liñ ci mënta dégg rek mooy bëggulu lu yomb baaxul koñ boo dem sëriñ si. demoo liggéeyi ndax ñëw toog luye ab néeg nekk ci koñ def say tarak jigéen ñi bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp wëlbatiku ñëw ci yow yow itam nga wan leen ne leen lépp lu ngeen soxla maa ko mën lijjanti jigéen ñi dalay yekkal palaa yoo xam ne duñ ko toggal seen i borom kër boo ñëwee laaj leen ginaar ñu toggal la ginaar yi indil la lépp lu ñu am ci liggéey seen takkaay seen yëre yépp danga koy faral di jël ñu yaakaar ne itam jigéen ñi ñoo moytu te regal yàlla ndax dañ gis ne loolu jigéen ñi ñoo ci gën a doon victime sëriñ boo la nga xam ne moom lay am yëpp client am yëpp ay jigéen la ñuy doon tey nag léegi-léegi am ci ay conséquences yu ci doy waar man jigéen ñëw na carrément ne ma léegi dama doon dem ci benn sëriñ mais léegi li problème bi mooy léegi man bëggatuma sama borom kër léegi man sëriñ bi laa bëgg kon am na ci sëriñ soo xam ne dañ lay nopp jox la loo xam ne yow au lieu que ñu fajal la mais dañ lay mujj nga orienté la yow ci seen bopp loolu yëpp dafay nekk loo xam ne nit ki na gëm yàlla nga dem ci ab araf ab sëriñ mu wax la loo xam ne lii nga gëm ko yonent bi mu ne ñeent fukki fan boo jullee yàlla du ko nangu weddi nga ma man yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla rek a man kon ay xeetu naxaate la te ni ni mel Sénégal melu ko ci benn réew mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, fukkeelu guddi gi ak benn ñeenti rakaa moom ngay julli raka bu nekk nga jàng fatiha jàng inna anzalnaahu fii laylatul qadri juróom-ñaari yoon jàngaat qul huwa allahu ahad juróom-ñaari yoon boo sëlmalee nga wax laa hawla wala quwata soixante-dix fois def salaatu ala nabi soixante-dix fois yal na ñu yàlla nangul nangul leen